aca gaay final ndeysaan final poids lourd fii si Niodior diggante Paul ak Talibé Diogo ndeysaan Paul Menthe moo ngeem li Talibé Diogo moo lu weex moo nekk à domicile waa Niodior la moom Talibé Diogo ndeysaan di bëggee sama grand seeku baba depuis Espagne tey maa waaye fàttewuma sama grand Abdou Thior borom mag faafa ndeysaan di bëggee saka ak ay da coor waaw waaw ñoom seeku coor bu depuis ma faafa waaye sama caméraman sampa sénégalais lemba table king maa ngi lay bëggee bu baax a baax ndeysaan sama doom day zeng saga di bëggee sama dëkk waa Palmarin di ko jëlee ngunumaan ngay jaxanoo ji feer ngàllu di bëggee waa abonné yi waa Zambro TV 100 pour cent di bëggee waa diaspora ndeysaan sama grand sama Siga waaye xam nga Siga fàttewuma la ndeysaan daal bi jógaa ngi déplacé wu dal bi jógaa ngi déplacé wu taxangul waaw waaw Paul Mante Paul Mante ngi ngay Paul Mante ngi nee taxawal nga bëggee Paul Mante nee taxawal nga bëggee ndeysaan Hey. waaw waaw da nga jël avertissement wala avertissement verbal la waaw waaw avertissement verbal pour taalibe Diogo ndeysaan waa àdduna waa BG ñoom Sampa ñoom Théokit ñoom Orzo waa Soyombaas ndeysaan laktis inko gëw naa jàpp si si ñoom maa ngi lay bëggee baax a baax di bëggee sama grand Demba ndeysaan di bëggee sama grand Etienne Lazare ñoom luy Samuel eh tal bi jógo tàgg na ko man na Polman Polman zongle na ko eh Polman daan na ko Polman na tal bi